téere la moo waral nag ma ne mbokk yi jóg leen jóg jot na yéen ñi nga xam ne da i soxlay di bëggante bëgg a dugg ci soxna wala bëgg a am borom kër day jaadu ngeen seetlu seen mbir ba xam ndax dëppoo ndax seen i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 au lieu de cent vingt-huit heures peut être mën na jël un nombre un peu réduit soixante soixante quatre def un tournoi donc jaugé chaque lutteur ànd ak benn benn benn accompagnant benn benn accompagnant mu doon sumikaay même kii ànd ak moom amul droit pour wër donc ñu jël les mesures d'hygiène qu'il faut bu ko defee je crois que ci kaw tribune yi tout au début peut-être les la première journée mën nañu bàyyi noonu peut-être les autorités de la lutte ñu nekk fa les managers les entraîneurs les euh. les gars CNG nekk fa mën a observer peut-être d'ici deux trois journées ñu mën a may mbër bu nekk sax au moins peut-être trois quatre cinq ñu nekk ci côté mi di espacé là jauger pour voir exactement ce que ça amène et puis le public aussi c'est-à-dire que euh, supporters yi làmb jàngat aussi que euh, la culture sport dafa am lu mu laaj mais pas yee ci ay chaise di ko damm di ko dajji Europe ñooñu mais ils ne méritent pas plus nous. mais est-ce que xam nga li nga wax ni euh, idée la parce que ñoo ngi wax huis clos bi ñii nangu nañ ñii nanguwuñu mais ci lu simple bi nii nga ko waxee bu ñu ko essayé deux ou trois fois dina mën a may accès promoteurs yi ñu ñemee huis clos bi mbëri tamit accepter bëre ko. waaw mais même huis clos bi ci laa doon jëm nii xam nga da ma dagg sax ci laa doon jëm donc dama parler de jauge essayé donc essayé par nombre petit nombre gis nga en Angleterre. day jékki-jékki 1000 2000 3000 finalement da ngay dem ba si yaakaar sax stade mais ne amu fa sax et en donc donc après ñu indi ay 2000 3000 donc di di dugg ndànk-ndànk mais tout en prenant des naan n'empêche que Covid bi am am na ñu muy topp am na ñu muy dugg. loolu nga wax noonu idée la te. bokk na ci loo xamante ni nii huis clos bi ñu wax loolu dina tax sax huis clos bi mën a démarrer. oui moo moo tax ma ne la il faut ñu commencer par ce qu'on appelle jauge bi juge bi mooy mooy jéem laal xool ba xam testé làmbatu natt bu ñu ko defee je crois que pas que tey làmb dina am problème pour voir le public de de Adrien Senghor ils sont sages ambiance génn xaalis mais kap foore ñoom jëm pecc ko tribune yi donc y a le comportement d'abord du supporter mais euh, nit ñi dañuy jël bëre ak dóor kese te ko ci kaw alors que bëre simple moo tax man moo ma daaxal. man bi ma fay njëkk a dem nangootuma dem bëre dóor ndax da gis amateur buy seetaan ba ci yàgg wàcc fecc ba mu neex ko mu maye yéegaat toog. te te bu euh, lu sax di ko topp. parce que dañuy xam mais yow fii da gis ku wàcc jël suuf si xëppoo ko yenn mbër mi daan dóor ci suuf <laughs> ah jël ba jël jam kee non euh, si vraiment Serge dañuy dañuy dañuy nangu loolu. li Aliou Sarr doon def Bira loolu la war di continuer di yar di sanctionner moo tax il est bon aussi de de repérer les écuries repérer leen d'abord xam ñan ñu identifier ñan ñu bokk écurie bi ñu identifie leen bu baax a baax pour ëllëg bu amee problème ñu mën leen sanctionner même la sanction mën na nekk pénal parce que y a des comportements yoo xam ne tey maa ngi gisoon naa un supporter ñaq jaruñu kii Aliou Seye mais ku taxaw saaga Aliou Sarr mais c'est c'est mais ça c'est de l'indiscipline sa autorité yi nga di ko saaga mais xam nga kooku vraiment dund sport ku dund sport doo def loolu alors que en réalité da nga war a ñëw supporter sa mbër daan nga kontaan ñibbi sa mbër daanu daa ko di nga mer mais gère digéré ko ba sa kër bu koy daanu koy yow mbër mi daanu nga war a mere kon yow su ma déggee wax ji mooy sanction yi Alioune Sarr teg ci diggante Alioune Seye 2 euh, ak ñàkk jaay ñu euh, ànd nga ci. non parce que loolu su am na sanction parce que c'était la débandade c'était la débandade parce que nu nous encadreurs autant que amuñu yenn yenn comportement par rapport ak yenn supporters et tout le monde voyait venir comment tu peux voir quelqu'un jël si Alioune Seye daw yi daw keneen daw ko dab ko. xëpp ko xëpp ko saafara xaw ma jam ko xeex ak moom boobu. dóorante est-ce que loolu yoon la ko mais mais c'est normal parce que journée jàmbur lañ yàq. et puis bu xoos jëmee ñi nekkoon àll séeréer di seetaan gis nga conséquence bi mu indi dafa pari donc ma je crois que c'était pas les lutteurs du Aliou Seye du ñax jariñ parce que Aliou Seye boobu mi ngi dem ah, kéema nga taxaw fële mais donc ñaari mbir dafa ñu dara mais ñi ñu àndal. bu ñu identifié wul mais il faut que sanction daal koy sanctionné est ce que yaa ngi comprendre ma expliqué. donc il faut que ñu commencé teel a identifier les présidents d'écurie le président d'écurie ñu ko Ousin mooy président Dóor Dóoraat bu amee benn ju benn élément Dóor Dóoraat bu am ki on appelle Ousin parce que récépissé bi yaa ci nekk ak sa trésorier ak secrétaire général ñu wala convoqué la entendre la. bu fekkee ne lutteur moo def sanction te may à tes côtés ñu entendre au bi parce que vous êtes les premiers les seuls responsables. de ce euh, balaa moom muy muy dem dina mën a xam na mu yabee ay ay xaleem wax jooju yëpp su ko undoo mooy euh, Bira Sène liggéey bu rëy moo ngi koy xaar ko. bu sax non bu rëy rëy rëy bu rëy man si j'étais à sa place damay restructurer écurie yëpp peut-être Covid bi may mais dinaa fexe. équipe bu nekk écrit bu nekk dem assemblée générale ma am benn assistant. mais instant bi est ce que loolu mënul nekk ndax benn activité amul. est ce que dajale leen waxtaan ak ñoom moment bi mën na nekk. non mi ngi concerté mi ngi concerté ay acteur de la lutte mais je crois que ARES les présidents les les les représentants des des écuries. mooy ARES l'association euh, des représentants des écoles et de lutte man bu ñu koy bu ñu koy créé maa ngi foon waaw l'association des entraîneurs moo ko sax jiitu ay quelque quelques quelques mois ou un an comme ça mais sorante wuñu mais donc loolu ñoom ñu ngi ci liggéey liggéey ba mu solo liggéey boobu aral si def il faut que président écurie yi nungul leen bu ñu leen nungulee loolu sanction yi dina mën a teel a am indiscipline bi dina wàññeeku parce que ku ñu repéré sanctionné leen dootoo ñëw làmb wala yooyu dootoo bëre wala sa écurie suspendre nañ ko pour un an ou deux ans je crois que dina am parce que écurie boo fi un an mbër yi amuñu droit sax dem feneen mbëri yi yaru ñi ànd ak ñoom leen yaru mais ñi ànd ak ji ñoo problème bi et puis sauvegarder aussi le statut des entraîneurs parce que entraîneurs yi dañ ñëw ba stade ba war a indi mbër nga gis ma Samba jóge fële yore ay ay ay seconram ñun entraîneur maa bi sërë bi xam nga yooyu day yàq làmb kooku moom dama xam dara ci règlement xamul sax géew bi ñaata mètre la. sport daal làmb daal la ñu war a defaraat. texte yi tout dañ ko war defaraat yéeyaa ci nit ñi ñu xam ne sport lii la laaj te ñoom ñoo fa nekk xam nañ ko Bira Sène xam na ko Ndiame administrateur impeccable tous les gars qui sont là-bas xam nañ ko ñoom Maysa ak ñoom ñëpp Maysa tout récemment organisé d' appui sur l' mais une organisation parfaite Bira moo yore équipe de Kaolack Kaolack daaw ñu ci finaliste oui donc ça implique que ñoom ñëpp liñu def xam nañ ko. mais il faut mu bañ am sentiment cest am na échange am na am na partage mais aussi il faut que les gens sachent que lii moo fi nekk il faut ñu defaraat ko ni nga koy defaraat nag sentiment bu la ñu doon il faut savoir sanctionner comme il faut savoir récompenser donc loolu munul ñàkk Sénégal nag boo sanctionné ñu ne ngaa soxor boo récompensé ñu ne yaa baax mais en réalité ñaar yëpp ça de pair.